mu ñëw yam ci yow nga di ko daj nga yoraat xeer tojaat oto. mbokk yi siifur 5M TV Sénégal dal leen ak euh, jàmm ci xibaar réew mi di Sénégal li fi xew doy na lool ki nga xam ne rek euh, mooy wuyoo ci turu Cheikhouna borom Carrefour business ginnaaw bi nga xam ne rek nit démb euh, dañoo wala ka nga xam ne rek moo di Ousmane Sonko njiital Pastef ci coow li nga xam ne rek moo dox ci digganteem ak kii di Mame Mbaye Niang ginnaaw loole nag ña nga xam ne rek ñoo di ndaw yi nag di li nga xam ne rek moo di ay manifestation am ñoo xam ne rek daan nañuy profité rek ca loolee

ne rek moom la jëloon nag mi ngay circulé jamono ji ci internet bi moom seexu naa nag borom Carrefour business nag ginnaaw ba nga xam ne sax dafa dem fa nga xam ne rek moo di ca place boobee nag ba nekk ca West Foire mu di ngir xoor lu ni mel nag ginnaaw loolee nag dafa dem nag ñu koy sànni ay xeer toj la nga xam ne rek moo di otoom moom seexu naa moom sax ma ngay wax ne jamono ja nga xamee ne rek dafa ñëw foofee nag fekk fañ la nga xam ne rek ñoo di defkati ñaawte fooyee nag amoon na occasion pour rey leen ñoom ñëpp parce que nag na arme moom na waaye nag du ko def parce que nag amul xool bi muy reyee nit moom Cheikhouna nag la muy sàkk ci yoon rek mooy mu def ab liggéeyam ci ñi nga xam ne rek ñoo doon def lu ni mel